asalaamaaleykum mbokki safa 7 TV bisimilah ci xibaaru digg bëccëg gi ci kalamay wolof ne ski su jukki neen li gën a fës dina ci bokk Bougane Gueye Dany daal ñu koy deferee ci suba ci tribunal grande instance bu hors classe bu Ndakaaru ñu ko def di waa cybercriminalité ginnaaw nag ba ñu ko dégluwee ni ki démb jàppaleen ne njiital gëm sa bopp ñu ngi koy toppee wàllum wasaare xabaar yu wérul waaye itam yi ay kàddu yu xottu war ma daanaka moom lañ gàll ci ndoddam lu wàllum procès verbal bi nag moom xaatimu ko loolee nag ngir euh, métitlu teg loxo gi nga xam ne daanaka euh, teg nañ ko loxo ba tey jii dañuy addu ci li nga xam ne moo xew ci Sénégal jamono jile ñu bari nag di jëflanteeg yoon jamono ji tax na nga kuréelu politique yi ak ñi féetewoo cetu taskatu xibaar yi ba ci waa société civile ñoom ñëpp ñoo boolantoo métitlu yëf yi di tuum ki joxoñ baaraam tuuma nguur gu yes gi jàpp na daal li ñu gis moo di ñoo yoo nag ci woy euh, kuji gi bëgg leen a euh, lotal la naka noonu itam dañuy àddu ci nguur gi ak koppar yi nga xam ne daanaka fësaloon nañ ko gannaaw xayma goo xam ne amaloon nañ ko ñu tuddee ministre Diomaye Faye ginnaaw démb ci conseil des ministres bi daana cee pox ndoolu waale daanaka rafetlu bu baax bataaxal gi nga xam ne ba woon na ci nguur gi ak liggéey wi nga xam ne def nañ ko ci kën a woon ca bopp ba di limaanu jógoonam du Ousmane Sonko waaye sàkk na ko nag ci moom ngir rek yëf yi ñu daal di liggéey baral ko bu ko defee yëf ñu mën a deltu ginnaaw askan wi nag mën a gis seen bopp mbokk yi ñetti ponk yi gën a fas boo leen taaxirloo ñu dëkk ak yéen ci àttal gi jaajëfal leen bu baax a baax ci teelu bi ànd beeg 7TV dañ koy tàmbalee ci tënk Bougane Gueye Dany njiital gëm sa bopp daa nañu koy defeere ci suba ci tribunal hors classe bu Ndakaaru moom njiital gëm sa bopp ñu koy toppee dafa wasaare ay xabaar yu werul waaye itam eh, yëkki ay kàddu yoo xam ne daanaka xotti góor ma la jëmale ko ci kilifa lu soxal procès verbal bi ginnaaw ba ñu ko dégluwee ba noppi nag moom dafa lànk ne du ko xaatim loolee nag ngir méttitlu waaye itam wane ñàkk àndam ci teg loxo nga xam ne daanaka eh, teg nañ ko ca loxo ca noonu nag chef de parquet wu Ndakaaru bu moyul dina ubbi ab information judiciaire ñeel mbir euh, moomle ñi nga xam ne ñooy layal Bougane Gueye Dany ñi ki dem démb bokk na ci maître Amadou Sall ak maître El Hadji Diouf ñoom ñee nag dikkaat nañ ci rek euh, bëccëg gi nga xam ne daanaka ñoo ngi ko doon déglu ca cybercriminalité seen i kàddu dañ koy teewlu. tey nag dañu am jaaxle ndax suba ba ngoon jot. lu ñu laaj bu bugaan tontu na ci tontu bu gën a leer bu wane ni lii ay caaxaan la ñu ne ko da ngaa diffamé saaga mu ne leen fu ma diffamé kan laa sosal kan laa yàq deram kan laa saaga mais biñ ñëwee di affaire garde à vue dañoo def revirement spectaculaire waxatuñ diffamation waxatuñ injure publique ci ñun loolu lañ interrogé bugaan mu daaneel leen bi ñëwee léegi nii ñu dañ koy garder à vue ñu ne motif ñu ne de fausse nouvelle ah ñu ne waaw yéen suba ba ngoon jot ñu laaj doomi jàmbur ji naa ko di ko ñu ñëw ci ngoon gi ci guddi gi ne non non non da ngaa tasaare xibaar yi amul ci ma suñu ko laaj ban mooy diffusion de fausse nouvelle mu leen man ban xabaar laa joxe boo xam ne dëgguwul damaa génne nouvelle bu bees senegal bu gaa ne génne benn nouvelle di ba muy nekk fausse nouvelle waaye lii day na di gars lii de moom moo tax buggaan a ree xëy na yàlla buy defar day mel ni ku yàq lu may koy layal ay farandoo mi tam di militant yi teewoon nañ dem ca bërëb boobee ngir gunge seen ab leader ci déglu bi nga xam ne yoon mu ngi ko noon euh, déglu waaye ñoom ñee nag dañoo rek ŋàññi euh, doxalinu nguur gi jàpp na daal lii yëpp ñoo nekk ci ginnaaw bu 11h jotee si suba la daal di yegg fii ci division de la cybercriminalité daal di ànd ak ay militant am. Bougane mel ni rek ku daal di ànd ak xel bu dal di xamal ni pare na ngir daal di jàkkaarloog enquêteurs yi. on est venu déférer à la convocation normale on y va et puis on est préparé à toutes les éventualités voilà. tiitul benn yoon. daldi yor saagam di xamle ni moom daanaka li ni mel yàgg na ko waaj wante rek duñ nangu benn yoon Sénégal di amal lii di recul démocratique ak ki di xoxatal ay opposants. lii lañ doon xeex tey ñu utiliser loolu contre ñun voilà. loolee tey moom la yor ci loxoom et moom la bëgg a xeexee ay opposants pour régler des comptes politiques. bu mu yegsee ci porte centrale bi nag daanaka xëccoo gu metti moo fi daal di am. ku ne si ñoom bëggoon ànd ak moom ci biir wante Bougane moom dong moo mujje jéggi bile bunt yor bile saagam nga xam ni nee na ay yéreem ñoo ci nekk mu mel ni rek kuy xamle ni pare na ngir daal di fay fanaan. sag sag sag baa ngi sag bi yàgg ngeen ko dégg. pare naa pour bu ñu ma jàllee bu ñu ma jàllee ma jàll ca foofu ndax ay gor rek ñooy dugg foofu fi mu nekk nii. ca barab boobu itam coalition sàmm sama kàddu daan artu itam askanu senegal ak waa bi ci réew ci doxalinu nguur gi jàpp ne daal dafa rekk bëgg a noppiloo ñi nga xam ne dañoo féete woon nag ci way ku jëkk waaye itam tàmbale ñoo naxasal wàllum démocratie. bu dee seen projet mooy jàpp ñu benn par benn tëj ci kaso bi loolu ñaaw na ana démocratie ci mim réew lii la xeex bu yàggul dara ba ay nit ñàkk ci seen bakkan lii dafay daw yaram. parce que nag waxu fi moom mii Bougane Gueye Dany waxu fi lu raw lu Ousmane Sonko yàq Macky Sall politique ak bi ñu jëm mooy moo leen tiital. à seulement sept mois yow defagoo dara yeggagoo fen ñu indi recul dans tous les domaines recul du point de vue économique recul du point de vue moral recul du point de vue démocratique recul du point de vue du respect des droits des libertés loolu yëpp nga jël ko def si recul loolu dafa doon lu ñaaw moo tax xam nañ ni tax ñu tiit. jàppoon naa fi ñu toll ci réew mi lu mel ni jeex na fi man loolu laa jàppoon. lii ñu bëgg teg Bougane Gueye Dany teg ñoom Cheikh Yérim ak ñeneen ak ñeneen injustice la parce que liste bi dana continuer fii ba élection yi loolu na jàpp naa ni Sénégal gépp war nañu jóg wax. langue politique gi fan yi daal na yëngu ginnaaw yi teg loxo yoo xam ne itam ñu ngi koy euh, nemmeeku tax na nag ba coalition fagaru les sentinelles de la république ñoom itam génn ab bataaxal bu yaatu daal di nag fësal seen ab njàqare ku jiite di Abdou Karim Fall bataaxal gu gee dañu ko rek jagleel nitu réew mi Bassirou Diomaye fay addu ci nag li nga xam ne rek moom lañ jàpp ne daal ay teg loxo la yoo xam ne du dëgg du yoon yëfi daal buñ sukkandikoo ci seen i kàddu dafa dem ba ñu roog caay doole si bataaxal bi ñu bind jagleel ko njiitu réew mi Bassirou Diomaye Faye waa coalition Fagaru les sentinelles de la République nee nañ daal ba nguur gi yees gi ñëwee si bopp réew mi ba léegi wàññeegum nañ lu tollook fukki doomu aadama yoo xam ne dañu leen jàpp tëj leen si kaso bi si anam yoo xam ne dëppoowul ak yoon si seen gis-gis ñi bind bi la lettre di tudd convocation bu njiital mouvement gëm sa bopp Bougane Gueye Dany sa brigade de la cybercriminalité gannaaw ba mu joxe ay chiffres yuy weddi rek kàddu yi Ousmane Sonko yilimaanu ñu yëkkati si lu soxal finance publique bu réew Sénégal Abdou Karim Fall ak ñi mu àndal si bile bataaxal ñoo ngi rek fësal mbetteel gi nga xam ne ni am nañu ko si li di xew si biir réew mi jamono gi tembe ñeneen daal ñu woon ni Bassirou jommaay Faye bu jëlee réew mi dertu gannaaw gu mel ni dina am si wàllu seen sañu doomu aadama yi wax seen xalaat si doxalinu réew mi nee nañ déception la ñu am si lu ni ndax si seeni kàddu moom njiitu réew mi ak ñi mu àndal ñoom ñoo waroon gën a xam li nekk si jàpp doomu aadama jaay ko doole xañ ka ay bokkam ndax jaar nañu si lu ni mel waa coalition fagaru di ko yëgal it li mën tukkee si xot-xotal gi ñu gis ne dañ koy xot-xotal ay kàngam yu nekk si làngu politique gi ak i activiste ñu koy xamal ni bépp nguur gu jokk jàpp ne lu ni mel mën na wéy yëfi sa kaw lay mujjee këpp ndax ñi ko fi def ñëpp jigu leen li waral rek ñuy ñaax njiitu réew mi Bassirou Diomaye Faye mu teggi tànkam dellu gannaaw si lu bëree bëri su bëggee sàmm dal geeg jàmm gi fii si réewu Sénégal ndax lu ni mel moo waral ñu bëri saskan askan wi wooteel ko su wàccee yoonam rek dina war ñi nga xam ne yaakaar gu rëy la ñu am si moom coalition Fagaru di ñaax njiitu réew mi mu def kémtulaay kàttanam ak lépp lu ko yoon may dakkal si nu mu gën a gaawee convocation ak jàpp yi ñuy jàpp opposant yeeg activiste yi ñu teg it lépp lu ñu toppee Bougane Gueye Dany Kader Diabou Sen TV Cheikh Yérim Seck ak ñeneen ak ñeneen gis-gis boobee jëm mbay la waa coalition takku wàllu Sénégal ak itam alliance pour la transparence des élections di atel ak kàpp itam féetewoo ci taskatu xibaar yi daal dañuy botaloo nag méttilu tegi loxo yi nga xam ne daanaka tàmbali na wulee ñaay jàpp ne daal loolee nag moom euh, fa mu jublu rek nekkul leen loo xam ne dinañ ci nawee Sénégal ndax yi fi dafa dem daal ba leen di gàllankoor seen wàllum liberté. convocation ak tegib loxo yi ñu gis ci taskatu xibaar yi ña bokk ci société civile ba léegi ñu ngay jur coow waaye tamit ñu mer ba futtu bés yi di wéy rek saa suñu yeewoo dégg ne woon nañ diw wala boog jàpp nañ ña coalition takk wàllu Sénégal yéeg rek ngir naqarlu lu ni mel ci kanamuk situation bi Sénégal di dund ñoom ñi nga xam ne ci ku gi la ñu bokk nee nañ rek lu ni mel ñaaw na lool la ci système démocratique bi nga xam ne nii daanaka dañu ko bëgg a soppi sistem système autoritaire ci seen nag communiqué ñuy xam ne rek ne kilifa yees yi li ñuy doxalee daanaka rafetul benn yoon te rek dañu rek bëgg a nëbb seen ak tële tamit tënk opposition bi rawatina rek taskatu xibaar yi naka noonu ci ñëpp ñoo xam ne rek ñu ngi yëngu ci làngug politique gi di ca joxe seen ak gis-gis ci seen doxalin wax jile tam benn la ca boruk alliance pour la transparence des élections di atel ñi nga xam ne jàpp nañ ne rek liberté d'expression la ñuy salfaañe jamono ji waaye tamit noot ay candidat yu bokk rek ci ku jéggi atel lim na ci sax mbiru pa jéggi Diop mi nga xam ne nee nañ mbiram mënoon na rek jur yeneen i coow sàmm sa kàddu ñu téye ko jamono ji coalition bi di xam ne rek ne lépp tu leneen rek lu dul fexe ba tënk leen ci yoon bi ñu daal di jël atel di woote sax jamono ji askanuk Sénégal ñu daal di rek a manko nekk benn ngir xeex li nga xam ne gàcce la ñu ko jàppee ay taskatu xibaar yu ci mel ni Cheikh Yérim Seck ñu téye leen coordination des associations de presse Reporters sans frontières ñoom ñëpp fëgg nañ seen ak dënn kàppa di fàttali rek ne Sénégal réewum yoon la te rek lu ni mel war na tax ñu gën a rek jox cër liberté de presse ni ko charte fondamentale tëralee RSF moom di jàpp ni Cheikh Yérim Seck mi ñu jàpp loole ëpp na loola jamono ji ñu rek wax ni Sénégal la mu ngi dellu ginnaaw. ci côté nguur gi nag moom daan nañu kii ay xabaar ci jamono ji nga xam ne ñi féetewoo ci wéy ko jigi ñi ngi ŋàññi chiffres yi nga xam ne bawoon na ci limaanu joxoon bu Sénégal di Ousmane Sonko ginnaaw xayma yi nga xam ne def nañ ko ci bànqaas yi yor réew mi jàpp na daal koppar gi dañu ko luubal waaye tam bor bi jéggi dayoo tax na ba niki démb ci jotaay yu conseil des bi nga xam ne ñu turéem Bassirou Diomaye Faye mu ko daal di jiite daal nay rafetlu itam liggéey bi nga xam ne daanaka kilifa yam ko dénkoon daal dañu koy def ba noppi waaye tam yemu ca sant Ousmane Sonko ci la mu gën a gaawee jël ndogal yoo xam ne yëf yi daal dinañ ko baral bu ko defee daal jafe-jafe yooyee ñu mën koo saafara ca raay nag ni ko rek saat ndey réew mi daal di santaane ak itam luwa yi tënk réew mi loolee nag mu ko rek daal di euh, bëgg waaye yemu ca daal dinañ fësal ne altine fekk fan ak ñeent cooru octobre atum 2024 ca CICAD dina fa jiite ak ndaje gu am solo loolee nag daan ca lëkkaloo itam ak euh, ñu mu liggéeyal ci Sénégal nekk itam ay ay euh, partenaire am ginnaaw génn ko nguur gi euh, ñeel nag li nga xam ne mooy chiffre yooyu ñu fësal waa Moncap itam di ay cadre féetewoo ci Pastef daanañ ci àddu nag euh, seen di xalaat jàpp na ne chiffre yooyu ñu ko luubal nekkut benn yoon nag nguur gi mais nguur gële nga xam ne moo fi weesu ñu tuddee Macky Sall daal di koy jiite woon jàpp ne daal Ousmane Sonko liggéey wi nga xam ne def na ko dafa rek daanaka tonku ci ay rapport yoo xam ne daanaka euh, ñu xool dénk leen ñu saytu ko pour réew mi ñoo ko fësal. génnu premier ministre Ousmane Sonko mu soxal situation finance publique juróon na coow bu bëri. loolu moo tax ba mouvement national des cadres du PASTEF génn ngir indi ay leeral ci mbir mi. ci bu muy amal conférence de presse Moncap daal di fekk ji ki nga xam ne moo jiite gouvernement bi rax ci dolli daal di weddi chiffres yi nga xam ne nguur gi fi nekkoon joxe na ko. liñ ñu wax ci wàllum bor bi gouvernement wu Macky Sall wax ñu ko nekk loo xam ne méngoowul ak dëgg bi nga xam ni IGF moomu la génnee li nga xam ne loolu la ñuy wax ni moo doon bor bi ak li nga xam ne moo feeñ boo leen méngalee di nga gis ni am na wuute boo xam ne mi ngi toll ci junni. ak juróom-ñetti téeméer ak juróom-ñeent fukk ak ñaar muy mille huit cent quatre-vingt-douze milliards gouvernement Macky Sall lépp na ko te yëgalu ko sénégalais mouvement des cadres du PASTEF di dëggal kàddu yi nga xam ne Ousmane Sonko joxe na ko te mu soxal déficit budgétaire bi nga xam ne Sénégal am na ko ci diiru ñeenti at yi ñu weesu. ci wàllum déficit mooy différence diggante li nga xam ni moom ngay gagné ak li nga xam ni moom ngay dépensé la nga xam ni moom lañ ñu wax ak la nga xam ni moom lañu fi fekk. maanaam li ñu wax bu doon benn li ñu fi fekk ñaar la ndax dañu newoon déficit bi mu ngi tolloon ci cinq virgule cinq pour cent diggante 2019 2023 ci moyenne te déficit bi biñ ko càmbaree ba càmbar ko gis nañ ni mi ngi toll ci 10 virgule 4 pour cent. Cheikh Fatma Diop ak ñoñam di xam ne ni nag situation bi dafa doy waar fi mu nekk nii ñuy naxarlu nag falsification yi nga xam ni am na ci chifre yi. comme réewu Macky Sall bi ñu nekkoon nag du réew bu tegu ci yoon. mbir yi bu waroon jaar ci yoon ci beneen wàll bi lay jaar da ngay gis ni dinañ dem jëli ji xaalis bitim réew fekk kuréel yoo xam ne war nañ teew duñu teew bu ñu teewul du ñu mën a natt bor bu bees bi nga xam ni jël nañ ko ñaata la loolu mooy waral xaalis dugg ci réew mi am ay kuréel yoo xam ne dañu bokk ci ministère boobu bañ ko yëg. bu ñu sukkandikoo ci waa Moncap génn bi nga xam ni Ousmane Sonko def na ko dafa méngóog digley UEMOA bi wax ni nag bépp régime bu bees dafa war a génnee rapport ngir fësal situation financière bi nga xam ni am na ci réewam. addu ba tey eh, jëmale jamono ji ak teg loxo yi nga xam ne daanañu koy eh, nemmeeku waneendu ko mbir eh, Thierno Alassane Sall daanañu koy oo ni ki tey ji itam ci alxames ji ci section de recherche bu caserne Samba Diéry Diallo ngir déglu ko ñeel nag mu coxam plainte yi nga xam ne daan na koy gàll yoon ngir ñu indi leeral ci waa ONAS diggante Cheikh Tidiane Dièye ak Cheikh Diam mi ko daal di jiite woon di xibaar gi nga xam ne moom ci boppam nag moo daal di yóbbu yi fii ci kanamu yoon ngir ñu daal di koy ak ah, leeral daanaka xabaar gi mu ngi ko rek euh, dugal ci compte xam ba tey ci xibaar boo xam ne itam dab nañu ci jotaayu xibaar yi Cheikh Yérim Seck di taskatu xibaar yi ñu ngi xamal ne itam yoon daan na koy ah, bàyyi wéyal nag xibaar yi addu jëmale eh, ci njàng bekk njàngale mi ubbi teg l'école gi nag moom léegi ñu amal ko ñetti fan ci octobre njàngalekat yi itam daal nañuy tàmbali seen liggéey fii ak ñeenti fan ndongo yi itam daañu rek dem ci bu bërëbu sàkkwaayu xam-xam yi waa COSYDEP nag jàpp nañ ne daal eh, ci yoon wi nga xam ne ca la ñu tënku lépp mën na yemb gu ñu amal nag ak at gu mucc ayib waaye itam am na leneen loo xam ne war nañ koo joyeen ci Oumar gu guleet gouvernement bu bees bi di fekkee ubbi télécole COSYDEP nag di rafetlu bu baax effort yi nga xamante ni jot nañ koo def ñoom ak ministère de l'éducation nationale ñu daal di amal ab concept bu bees sama école sama yitti ngir rek année bi daal di jaar yoon dañoo mus a wax ministère soo leen bëggee liggéey lekkool bi nekk une réalité il faut que jàngalekat yi nga xam ne génn leen ci école yi nga affecté leen à donc ren ñu koy rafet rafetlu gis nañ ni ministère jël na matukaay yépp ba nga xamante ne ni affectation yëpp génn na enseignant bu nekk xam nga fan nga war a dem. teewul nag doléance yu bëri dinañ ko daal di fësal jagleel ko njiit yi door ko ci ñàkk jot ci yenn lekkool yi. am na école yoo xamante ne amaanaam euh, jour lubito bi du ñu mën a ubbi ndax inondation yi euh, wala école bi su inondé waaye euh, wala occupé occupé nañ ko. Euh, sinistré yi donc ñuy ñaan état bi matuwaay yi ci war yëpp ñu mun ko jël ba nga xamante ne jour lu bité bi euh, école yi dina mun a accueillir xale yi leneen lu ci tegee moo di politique ndaxte fii ak weer képp ñu daal di dem ci joŋante législative tey jii mën na ñuy waajal ay élections te yi fi du am benn njeexital si wàllu njàng mekk njàngale mi xale yi dinañ mën a woyal seen njàng si anam gi mu waree ba sax kàllaama yu ñagas yi ñu faral di yëkkati yi fi du si ñoom lu ni mel nag maa ngi sàkku rek si politique yi ñu bay si seen waar bu baax a baax. juróomi fan daal di des école daal di ubbi ay buntam coalition yu organisation synergie pour la défense de l'éducation publique di am yàqin ni concept ubbi tey jàng tey dinañ ko jëmmal ren pour yëf yi daal di mën a yemb nag faaw ñëpp daal di ciy dugal seeni yoxo wàllum tàggat yaram Aliou Cissé nga xam ne nii liggéeyam ci bopp équipe nationale bi daat nay jeex xabaar gi root ni ki démb Abdoulaye Thiam mi jiite kuréelu taskatu xibaar yi yëngu nag ci wàllum tàggat yaram nen daal di fi nag ak mbettel la mënoon ñoo xool anam gi nga xam ne rek mënoon nañu ko koo defee ba mu gën a rafet. brutalité informe euh, décision bi wala timing bi li tubaab woowee timing. maanaam Aliou Cissé jël na listam yónnee na ko joueurs yi ñu war a convoqué parce que réglementation bi dafa ne juróomi fukki fukki at ak juróom balaa compétition bi di ñëw war nga yónnee sa liste yónnee woon na listam donc léegi le 11 incha allah Sénégal dafa war a rencontrer Malawi le 15 octobre aussi Sénégal dafa war a dem fële ci Lilongwe capitale bu Malawi pour jouer pour benn match mooy ñaari match trois troisième et quatorzième quatrième journée il n' attend CAN 2025. su loolu weesoo aussi mois de décembre bi aussi dañuy enchaîner am na benn match bu am solo boo xam ne war nañu mun a defi ko war nañu mun a dem defi ko fële ca Abidjan diggante Sénégal ak Burkina Faso parce que Burkina Faso ba léegi amagul stade boo xam ne répondre na aux normes match bu mujj bi nag mu ngi war a amee fii ci Ndakaaru Sénégal ak Burundi loolu nag mooy poser problème mu timing mooy indi beneen xalaat est-ce que donc Aliou Cissé bu nekkatul entre équipe nationale bu Sénégal est-ce que Pape Thiaw bi nga xam ne moom mooy adjoint am mooy assurer intérim bi. mu continuer liggéey bi ak ki nga xam ne moom mooy Mayacine Mar yàgg na fi loolu nag situation bu mel noonu daawoon nañ ko gis. bu ko defee dañuy àddu jëmale ci banque gu ma jóg yi dee ñeel ëtt yi daleen ak jàmm yéen kaay ba di kaat nañ ci alxames ji li nga xam ne uh, mooy teg loxo gun teg loxo Cheikh Yérim Seck di tasal xibaar bi ak ki nga xam ne mooy lem loxo ak ay convocation yu bëree bëri ci ñoo xam ne kat la wala sax ay taskat xibaar ba tax na ñëpp dañoo yàq melengaan tàndeem bi di Diomaye Sonko bu fekkee ne kat Cheikh Yérim Seck moom dañ ko daal toppee rek li nga mooy diffusion fausse nouvelle diffamation ki xam tamit daal mooy Bourgane tey yéen kaay bi ne daal machine bi kat ma ngay euh, daal di daw lu bëree bëri bu sukkandikoo ci le quotidien le quotidien ne daal dafa mel ni kat lii daal di yàq ay institution ba kat daal di gàkkal der république bi enquête ne daal bu deful nank rek régime bi nag moom daanaka ne kat moom ma ngay artu régime bu jomaay bi ak sonko daal pouvoir bi nga xam ko moo nekk ay arrestation ay euh, daanaka sax ñoo xam ne kat daanaka sax ay opposant la ñu gis ne daal wàllum diffamation la leen teg ak li nga xam ne kat mooy diffusion de fausse nouvelle ba tey ñoo xam am ay retour de parquet waaye nag lii nag moom daanaka gëj leen koo gis ci nguur Macky Sall ba tey yéen di observateur ne daal ñëpp daal li wax dëgg ndax dafa mel ni climat bi na lool ci ay fan yoo xam ne moo am ñu waajal li nga xam ne élection législative ay garde à vue ba na waa société civile daal ak ku jégi ñoom kat dañoo yàq melengaan nguur gi les éco nee ak lu mën te ñoom lañ leen toppee muy diffusion fausse nouvelle dossier bi nag moom nar nañ ko yóbbu instruction ba tey ah, dañuy desani ak les échos ci wàllum tàggat yaram ak renouvellement bi nga xam ne kat euh, dañ ko daal di lankal ki nga xam ne Aliou moom dañoo tekki nomba tànkam ci bopp gaynde yi nekkatul tàggatkat bi de tey les échos daal li ñu def ñaaw la te rafetul la Walf Quotidien daal argument yi nga xam ne boo jëruñ dénk wàllum euh, tàggat yaram kat loolee dafa daal di euh, woyof lool waaye lépp daal gis ne kat statistique bi nga xam ne moom la El Tactico am téeméeri match ak ñett daanaka juróom benn fukki victoire ak juróom ñaar ak ñaar fukki yaa nul ak ñett fukki defet ak ñett ba tey gisee ne daal lii nag moom tax na ñu daal di yaakaar ne kat moom daal waratul nekk ci li nga xam ne mooy bopp gaynde yi ndax gisee ne kat li nga xam mooy objectif yan ko tegoon atteindre ko ba tey ne kat bés bi la journée daal bettul kenn ndax gis nañ ne daanaka sax bi combaaloo amoon na ci bopp gaynde yi ba tax na bras de fer amoon na ci diggante fédération sénégalaise de football ak jëw ñi nga xam ne wàllum dégg tàggat yaram bi ba tey ne daal daanaka juróom-ñeenti at moom Aliou Cissé nekk ci bopp li nga xam ne mooy équipe nationale bi ginnaaw sport bi nag moom Sud Quotidien di kaat nañ ci wàllum ute classe bi tey ji nag moom jàngalekat yi ñoom ñoo daal di ubbi di xaar seen i jomaay moom wax ne kat dina teg conseil supérieur ci wàllum éducation ak wàllum formation Pape Mbaye Marie Sylla secrétaire général CELS authentique ne daal stabilité politique moo daal di ñeel ana boo nga xam ne kat du am benn perturbation si lay góorbal si moom nee na kat lépp daal dañoo war a gam-gam le suñu ya doole bu ko defee ñëpp daal di mën soobu njàng mi mën jëm kanam jaa ngeen jëf jërëjëf Omar Cissé mbokki jaara fi boor jotaay yoo xibaar yi jaajëfale na bu baax ci tellu bi ànd bekk 7TV dig daje ci kanam tuuti ci xibaar yi ci tënk juróom waxtu lay doon ci kàllaama nasaraan ak wolof jëf